asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu suivre ci référence actu ñu ngi leen di dalalaat ci seen émission gan gi tey nag suñu gan mooy Abdoul Abdoul Alain Abdoulaye Ndiour parce que tour bi du ko maîtriser ko xaw ma laay jiital xaw ma Abdoulaye Alain Abdoulaye Ndiour mooy seen mooy suñu gan tey ci suñu émission gan gi euh, moom nag écrivain la waaye slameur la ancien rappeur la euh, journaliste la et il est membre de le, de l'équipe de communication de la mairie de Bargny mais Alain bëri nga casquette ah. <laughs> oui <laughs> Cissokho. waaw. waaw bon bëri naa casquette comme beaucoup de Sénégalais mm. mais li nga wax yëpp génnul communication quand on est rappeur slameur. Mm. journaliste et membre de la cellule de communication de la mairie de Bargny am na beneen boo boo fàttee il est arbitre de football. arbitre de football. <laughs> écrivain. mais euh, l'homme douze métiers quoi. l'homme douze métiers moo tax aw ma jot. <laughs> Euh, tey tey li tax ñu woole suñu plateau sax da nga da nga génne benn recueil de poème bu mhm. bees. Mhm. souffle des alizés. Mhm. souffle des alizés on sait que nu Bardi ka dëkk. waaw. Bardi c'est au bord la mer. mu ngi noonu c'est bien. c'est la mer qui dégage l'Alizé. oui pourquoi souffle des alizés. souffle des Alizés Cisco comme ni nga ko waxee et puis mm-hmm. maa ngi lay nuyu di mm-hmm. bëgg ci invité <laughs> invitation bi nga ma defal. Mm-hmm. souffle des Alizés comme ngi on dit Bargny-sur-Mer. et di ki di Bargny-sur-Mer parle de l'Alizé maritime. te alizé maritime moom boo ñëwee ba mois de mai c'est extraordinaire ñun ñi dëkk ci booru géej moom xam nañ loolu. donc souffle des alizés parce que déjà man dama am habitude di dem euh, géej fa di bindee. et c'est pas qu'à Bargny euh, seulement. Euh, tubaab jalaa laay faral di dem lu bëri di bind mais chaque fois booy bind xam nga inspiration moom buy ñëw au fur et mesure que ngelaw géej gi di ñëw moom day ibbi bopp bi donc la euh, là quand il fallait chercher un, titre j'ai souffle des alizés pour un peu rendre hommage à cet océan à la mer qui me donne euh, ce vent bi nga xam ne mooy permettre man may euh, inspiré wu de manière métaphysique toujours sur le titre le titre est-ce que yam ci le vent bi jógee ci géej gi di ñëw ci nit ñi kese la est-ce que cette alizé là représente autre chose de plus profond que ça. si ça représente euh, quelque chose de très très profond d'ailleurs boo xoolee ci euh, couverture bi maa ngi noonu toog ci gaal jàkkaarloo ak. Euh, géej gi mm-hmm. parce que bon boo xoolee. ñun ñu ngi dëkk euh, benn quartier bu ñuy wax Njagasaam samay origine foofu la ko ñu ko xam bari mais ci biir Njagasaam dafa am benn benn partie boo xam ne mu ngi tuddoon Ndos. ndos boobu mooy suñu euh, cosaan. Mhm. mais géej daf ko yóbbu. mooy du euh, ma la wax érosion côtière bi mais yóbbu na ko c'est depuis des années ay euh, cimetière ñu ngi fa ay kii ñu ngi fa donc sa renvoie tout le temps à l'océan donc comme ni ko waxee métaphysique day am benn affaire boo xam ne en profondeur day ne ci man d'ailleurs boo duggee ci biir livre bi sax di nga xam ni am na ku may kii mun a ma ndax sa rab. nekkul ci biir géej comme léegi dañoo am kii ma ne ko damaa nekk nitu ndox rek. dangaa nekk nitu ndox. <laughs> waaw mais say rab soriwul géej. sori non sori léegi yëpp am rab. <laughs> ñu ñu ñu dugg ci livre bi. Mhm. ci ci ci ci bi. Mhm. mu ngi tudd recueil euh, so euh, Souffle des Alizés ci édition Nuit et Jour. Mhm. Euh, ci livre bi ci ci recueil bi ñu gis ni dafa am ay nit. ay dëkk. Mhm. ay ay ay ay ay ay ja ay ay bërëb. Mhm. yu bari ya nga xamante ne danga danga da leen da leen woy. Mhm. danga nga da bind si ñoom. lu ko waral. waaw li ko waral parce que boo xoolee man dama nekk doomu fonctionnaire. donc mon papa était fonctionnaire. day kii gars yi dañ may reetaan Ziguinchor laa duggee laa duggee école. donc euh, je parle bien le Joola je parle bien le léegi nag Ziguinchor m'a beaucoup marqué parce que bu fekkee na nga jógee région de Dakar nga dem Ziguinchor avec toute cette verdure qu'il y a là-bas nga gis tool yi am ay kacando nga gis rizières yi ni mu mel en tant que xale daf ma marqué d'ailleurs pour euh, chanter j'ai pas chanté Ziguinchor mais j'ai chan j'ai chanté euh, euh, ku jigéen ku tudd Abibatu Sagna on s'était connu à Ziguinchor mais c'est à Rufisque qu'on s'est rencontré hmm. donc mu marqué ma boo xoolee aussi Tëngéej def ma marqué parce que je suis né à et la France. waaw fa laa jëm léegi gis nga bizarrement di nga si gis léegi moo jógee Ziguinchor xam nga fan lañ fan la ñuy affecté. Mhm. on j'ai affecté à Saint-Louis. Saint-Louis léegi ma jógee Ziguinchor quand je suis venu à Saint-Louis j'ai vu le pont ma découvrir pont bi découvrir euh, Ndar ak euh, son coucher du soleil et tout. malgré que j'avais 12 ans, 11 ans, ouais. mais ça m'avait ça marqué. C'était l'âme du poète qui était. Qui voilà, bah, mon ouais. Et puis, bizarrement, moi je quitte Saint-Louis, je viens à Dakar. Je quitte Dakar, Madame France. Légui, 2017, là, il est Saint-Louis. Et le fait que moi, match football comme arbitre. Ouais. Et c'était en 14 août, mm. anniversaire, veille euh, 15 août et là je dis je découvre Saint-Louis et le pont m'a reconnu euh, après je dis je suis allé à mon école l'école Ndiolofène je me vois en train de résoudre les problèmes qui et j'ai j'ai revisité Sindoni j'ai revisité revisité Lodo j'ai j'ai j'ai léegi nag si sama xol dafa am benn affaire boo xam ni kii ma ne en cette veille d'Assomption j'ai revu Ton coucher du soleil sur Guet Ndar waaye dafa ma daf ma marqué te loolu bi ma koy bind. Mhm. dafa jékki-jékki rek mu ñëw donc yaa mhm. am benn am point kii bu nekk ci man. léegi nag après Saint-Louis ma dem. Dakar dama dem euh, Dakar li lycée Blaise Diagne. parce que Charles de laa dem Saint-Louis j'avais 11 ans dem fële am euh, entrée en sixième def sixième cinquième ma ñëw lycée Blaise Diagne après commencé mine centre culturel Blaise Senghor côté dem. culture ak affaire yooyu Douta Seck walaay. taf mu mel dañ ko dagg après yu jékki-jékki rek ñu ne on va à Paris sama famille dem nañ man ma bañ parce que je me disais que je suis te jamono jooju kenn mënu ko woon nangu il a fallu qu'on envoie beaucoup de personnes parce que moi je voulais pas quitter mon Sahel natal après ma dem Paris dem benn ville bu ñuy wax Soisy-le-Roi. soisy le nag bi ma ko déggee sama papa bi mu demee après la famille dit eh, Alain nous nous sommes à Soisy-le-Roi waaw. j'ai ville de la banlieue ville de la banlieue située à quelques à douze kilomètres de Paris à vol d'oiseau ñu def ko ci kii bi ci dictionnaire bi ah ça a sonné euh, poétiquement. est-ce que est-ce que c'est pas on on t'a on t'a pas dit. Euh, sa famille ba ñu demee installé à Choisy le roi on t'a pas dit et le ah, euh, roi Alain Choisy. <laughs> c'est pas la question qu'ils t'ont posée. oui. Hein? C'est cette question et tu, tu y <laughs> dañuy ñëwaat ci kii ma gis ni da nga tijji eh, sa sa sa sa recueil eh, par un poème. Mm-hmm. sur Ndiouga Dieng. Mm-hmm. Eh, si kenn kenn du ko kenn du ko présenté. si -hmm. c'est c'est Ndiouga Dieng c'est l'âme de Bargny. waaw ouais, c'est de Bargny et puis. Euh, moom it pourquoi pourquoi ce choix nga tijji Ndiouga Dieng. c'était l'ami à mon papa. c'était ton papa. mon bien. Ouais. c'était un artiste. Ouais. mu nekkoon ba mais souvent il venait chez léegi nag euh, moom papa Ndiouga moom papa dafa amoon benn dafa baax. c'était un billet exceptionnel. waaw et eh, benn jour mu amoon benn manifestation bu amoon sant bu amoon Bargny la je suis parti ñoom Ibrahima Seck nga xam ko. Mhm. citoyen du monde ma koy nuyu. Mhm. moo amoon benn manifestation boo xam ni y avait tout presque tous les artistes de Bargny mu woo waa Sorano léegi nag man ma yéeg pour déclamer benn poème il m'avait invité. Mhm. bi ma ko joué ba pare moom ci la may door a xàmme. d'ailleurs c'est moo tax ma xaw kii nii. il quand il a pleuré mu ne ma man mun naa arrêter comme samay doom ñoom ñëpp yéeg nañ si seen to comme papa écrivait yow booy dem ba bind li nga bind nii xam-xam la après mu ne ma man ak yow dinañ def duo nga def kii nga def kii et sam papa dañ daan tooñante te dafa am benn affaire bu ci am il militaire. waaw bi muy euh, dem mu nekk marine dafa toog benn guddi mu denkaane parce que moo moo si mon papa était soldat mu dénkaane sam papa postam ne ko demee dem jouer. mu dem jouer mu dellu si mu ni ko damay démissionner parce que li may gagné en une soirée armée kii armée mënu ko fay sam papa nee na mu ne ko xoolal bu baax parce que fayeku weer ak kii nii sax mu ne ko non damay dem loo ci wax sam papa ne ko demal et là il est parti ils sont restés gis kaa son décès te moo tax sax d'ailleurs bërëb bi may liggéeyee nii actuellement centre socioculturel El Hadji Ndiouga Diagne moom lañ ko tuddee en plus beneen affaire tamit boo am xam nga maa si kii bi nee naa ko nee naa ko le Sénégalais va l'enfant chéri di Cap-Vert parce que c'était un Cap-Verdien mais quand di dis Cap-Vert quand on gis ni cap dafa am dañu am cosaan mooy dañuy gumbe dañuy ndaw rabin dañuy def eh, fanaal. Eh, eh, moo ko doon way fanaal yi daan am Ndakaaru yëpp. je te jure et il a chanté ndeysaan euh, Mamadou Diop. Ah, il a chanté il avait il aussi benn affaire boo xam ne dama koy retrouver chez toi mooy la profondeur de texte ça c'est ça c'est Bargny. ça mm-hmm. c'est. ça c'est les souffles de l'Alizé ou c'est que qu'est-ce qui fait que si même même ces jeunes fils là ki chante damay euh, gis Momo Alpha Alpha mhm. dañu mun a euh, c'est des gens qui savent écrire dañuy bind parce que moom Momo Dieng gis naa ko mu génne benn euh, woy fan yi mais au-delà de la musique de la voix mais il a un contenu qu'est-ce qui fait que yéen ñu dëkkee ban ñi ci taatu géej malgré Euh, attaque Sococim. Mhm. Euh, mhm. Euh, centrale à charbon. vous êtes réfléchi. waaw oh, nous nous sommes réfléchis parce que boo xoolee ci ci lébu. Mhm. dafa am lu ñuy wax penc. te boo xoolee sax mooy ñu naan fukki penc yeeg ñaar ça c'est une autre histoire. mais boo xoolee comme les douze tribus d'Israël. lébu itam dañoo am ay ci penc moo tax ngay dégg waykat bi naan sekk sekk néegi. néegi mbaaw mbeng mbeng néegi yoof ak les sumbe. jéen yi jéen yi dakk jéen yi ak jóob yi am fu ñu dëkk saa à dire dañu daan am nekk sa dëkk waaw waaw dañu léegi nag ci ko si biir penc si biir quartier yi tamit dafa amaat yeneen penc yu ne foofu ci biir penc yooyu fa la ñuy waxtaane fa la ñuy waxtaane te tamit xam nga euh, pas pas plus tard que dimanche jël naa sama velo dem ba Sendou toog foofu noonu pour regarder le Grand Bleu mais dalay dalay inspiré doc dëkk ci booru géej day inspiré parce que déjà euh, posez-vous la question pourquoi Barkhane 6 ngaan sàmm barxaan buy buy woy voix bi ak ni mu koy yëkkatee. donc euh, ñu nekk si bët dañu am inspiration. waa waaw c'est des gens très inspirés. waaw euh, j'écris ma vie. et ta vie quand si tu écris ta vie que ta vie bon j'écris ma parce que am na ay questions yu bëri yoo xam ne comme doomu aadama bu ne da nga koy poser wu qui je suis euh, ba dem ci Descartes quand il je pense donc je suis ou bien le bon sens est la source la mieux partagée au monde yow léegi yow boo toogee xool da ngay bëgg xool yow yaay kan foo jëm sama ëllëg lan la démb man la woon tey maa ngi nii sama ëllëg lu mu doon et puis euh, mais dans dans mon cœur comme tout tout euh, écrivain am na ay euh, douleur yoo xam ni da ci nekk je pense bien c'est ce qui a fait de mois euh, un poète je dis j'écris ma vie je réfléchis au gré du vent damay bàyyi sama xalaat muy dem ma jël ko posé ko ci papier mm. amaana sax je suis le papillon qui est en train de gambader sur des fleurs mm. ou bien je di je suis une abeille qui va de fleur en fleur pour jël pollen boobu noonu def ko miel. état bi état bi qu'est-ce que qu'elle ma vie euh, xam nga kii nee na ma même euh, kii euh, sama éditeur nee na ma tu nom un homme milliers parce que déjà am na ña la wax ne. anee alab lebu waaye alab tubaab waaye na ma déggee see ma reefu noonu laay waxee kii donc ma vie ce qu'elle m'a appris mooy je dis man gisuma frontière gisuma xeet gisuma religion tu es universel je suis universel comme naam et là mon nom m'a beaucoup aidé ñu Alain Abdoulaye Ndiour te Ndour laa sant Ndour quand Ndour quand je viens va je vais essayer les serrer parce que je suis un, je suis descendant de Mbégane Ndour Mbégane Ndour c'est le premier euh, euh Sine mm-hmm. moom moo nekk premier Bour Sine d'ailleurs foofu la ñu bokkee ak ñoom euh, Youssou Ndour moo tax ñoom ñuy wax prince art parce que c'est des princes on dit Ndour a waali waaw man awma sax far yàlla awma sax nationalité far moi je me dis que man euh, à tout le monde tu appartiens au monde <laughs> au monde wallaay eh, eh. mu ngi noonu et pour toujours et pour toujours. waaw pour toujours et pour mooy du ma a bàyyi. Hmm. pour ah. toujours. Ah. quoi doo mës a bàyyi. du ma mës a bàyyi parce que déjà moi je di que euh, la vie c'est un film donc chacun a son rôle à jouer yow yaay élément perturbateur bi yow yaay la héros yow yaay kii mooy yow sa mission bi ngay euh, continuer da koy continuer man et pour toujours damay nekk homme de culture. Mm et pour toujours. je vais continuer à écrire jusqu'à la fin de ma vie. Euh, ta Ma sirène, ah. <laughs> je dis ma sirène, ma reine, fille de la petite côte. Ah. Puis au regard d'où est personne. Ma sirène, euh, est-ce que Mouna. Bon, je peux le dire, elle s'appelle euh, Mouna Kawak parce que Manaka euh, Djekarum, on est devenus amis. Elle s'appelle Mamfatou Diagne. et de la petite côte laa koy woowee parce que c'est une aventure que j'ai connue en 97 mu yàgg de. 97 waaw je viens tout juste de vivre mes premiers parents <laughs> mu ngi noonu sama xarit la 97 booy woon léegi ay mag lañ. ay am nañu am nañu 25 euh, ans 25 ans waaw boobu laay njëkk xam maam Fatou. c'est là ñu ngi xamanti sur la petite côte je venais de la France léegi nag euh, mu nekk euh, sama xarit j'ai pas voulu la quitter mm. parce que dama kaa bëggoon mm-hmm. Euh, gis naa ni aussi au delà dinaa ñëw ñëwaat si sa lingeer ak ñoom seen. Mm-hmm. Euh, <laughs> gis naa ni. daf xam quoi. <laughs> waaw <laughs> gis naa ni. Mm-hmm. Euh, par exemple quand tu me parles de Rufisque la portugaise. Mm-hmm. gis naa tu me parles de Gandiol. njëb njëbbeen. njëbbeen Toubène njëbbeen waaw. Euh, gis naan ci la route de Saint-Louis. Euh, sur la c' est sur la route Gandiol c' euh, gis naan tu me parles de de Bargny. Yeba Inda. Yeba Inda tu me parles de tout cela pourquoi ku ci nekk par exemple jël Rufisque la portugaise. waaw Rufisque pourquoi elle t'a marqué parce que gis naa ni c' est ba Rufisque si sa enfance est ce que am na benn. bu baax benn benn kii. bu baax bu baax bu quoi. surtout la la la rue Adama Lo. waaw. j'en discutais maa ngi ci doon waxtaan. maa maa ngi yow la marqué ndo. waaw maa ngi maa ngi koy waxtaan ak euh, keroog sama benn xarit ñu ngi génn Tëngéej ma ne ko rue Adama Lo ni mu meloon. Mm-hmm. ak euh, léegi mu ne ma le monde a changé gis nga diggante euh, église Sainte Agnès. Mm-hmm. ba dem marché. Mm-hmm. gis nga foofu architecture bi nu mu mel. et puis da nga daan toog gis picc yi ba léegi day am au mois de mai Euh, la portugaise parce que déjà ku dem euh, Portugal. Mhm. nga ñëw xool nga gis li fa am ak euh, kii nii tu waaw ku dem Lisbonne comme Tëngéej. comme Tëngéej tuile tuile yu rouge yi. architecture beeg yëpp surtout surtout le vieux Rufisque. comme le vieux je comme di dafa am benn aspect poétique. voilà dafa am aspect poétique. loolu moo tax ma bind ko et puis sama enfance loolu daf ma marqué et puis yemul foofu sax boo demee dugg ci ci ci biir. Mhm. dem naa ba expliquer. euh, sans euh, du moyen crépusculaire et puis à côté l'océan éternelle demeure de Maam Kumba Lamb mm -hmm. et dans l'obscur euh, l'obscurité Maam Kumba ah. Lamb sa maama waaw alama <laughs> maam alama maam et voilà xam nga boo xoolee foofu tamit ndënku fa la ne ndënku waa waaw boo wàcc suuf ndënku fa la ne et pourtant waa Tëngéej yu bëri xamuñu ne ndënku mooy le premier quartier lébu original waaw parce que original originel original ndënku originel laa fi xaj eh, bi baax découvrir jën bi gis nga fa la ne voilà <laughs> et là yow kii euh, euh, ndënku bi ñuy wax ndënku après la existé moo tax même portugais yi ñëwee dàq les indigènes waaw boo xoolee pacte yu bëri sax suñu maam lébu yi foofu lañ ko signé ak euh, ji ak jinne yeeg yooyu mhm. déjà mooy gars yi mooy xam nga dafa am benn kii toute histoire lébu yi bi ñu ñëwee fii nii bi ñu jóge Jolof dañ ñëw ci actuel stade Léopold Senghor non Léopold Senghor. Léopold Senghor ci kaw xam nga c'est en montagne la. ci la tribu euh, yi douze tribus yi ku nekk wàcc dañuy wàcc mais ñi euh, waa Tëngéej ci ñoom bokkuñu woon ñi ñëw foofu ñoom dañu jógee côté Kounoune. Kounoune lañ jógee. dañ jógee Kounoune ñëw euh, dëkk si foofu. mais yéen waa Bargny moom nee ngeen jaar. dañu yéen waa Bargny noonu lañ jaar. ñun waa Bargny bon man sama maam mu nekkoon kii xam nga loolu tamit mooy lendeng. waaw. lendeng mooy fii. mooy actuel sukk mooy sukk si mu nekk nii nii nii. foofu mooy lendeng te xam nga lendeng mooy nu muy tudd. Hmm. Euh, dafa amoon euh, ku tudd saayu Seck àndoon ak euh, benn jigéenam léegi bu mu xàlle ba mu mun fa dëkk dafa nos xam nga nos. saa à dire lay waxee. Mm-hmm. mu ne ko loo wax bu bëggoon wax leer na ndeñ mu ne leer na mu ne lendeng. Lendeng mu tudde ko Lendeng ñun si lébu ñu waa Bargny <laughs> ñun foofu lañ jógee foofu ngeen dëkk kon Sogosi moo jël seen suuf si ah waaw 1948 mm. mais mais Yaba Inda mhm. sa histoire ak Yaba Inda sa sa sa sa nelaw yaa waaw si suufu garab yi lan la qu'est-ce qui est-ce que c'était gratuitement c'est pas gratuit vous avez vu euh, j'ai écrit Yaba Inda me voici sous la sous suul le baobab et me vient un son pour dagg noonu mooy Yaba Inda dama demoon arbitrer navétane léegi première heure bi mu commencé le match n'était pas plaisant du tout comme man deuxième heure laa doon def ma ne waa léegi boo xoolee Yaba am na benn genre colline bu ne foofu. waaw je si monté sur la colline. et bizarrement ma jël sama saak ma kii ko ma nelaw lii bi muy cest ngelaw bi kii affaire poète rek. le vent a soufflé là. après inspiration waaw non après dama dégg benn riiti riiti riiti riiti pël. pël yooyu waaw muy kii rek waaw. mais c'est pourquoi j'ai dit un un son basalement qui m'a emporté tel tel tel et là quand ma dem mais le nom est resté dans ma tête léegi ma bi ma ci bëggee bind je dis à ma mais man de tey dama demoon yeebaa kii mu ne ma pourtant euh, am na benn teen bu ne foofu teen bu am solo mu ngi tudd euh, le puits de Ndeer sax. pourtant sa maam dafa la faraan yóbbu si sa maam Yacine c'est pourquoi si euh, fin bi maa ngi koy rendre hommage foofu après j'ai vu que ah ndekee itam fi ma nekkee xale dama fa daan dem après j'ai vu am nga dafa dama ay mangue yeeg yooyu. ça m'a marqué mais mais Alain bu ma gisee Yaba Inda Rufisque la euh, la la portugaise yéen la merveilleuse Saint-Louis. Mm-hmm. que yooyu yëpp qu'est-ce qu'il lan moo leen lié tous ces liés là. waaw Saint-Louis. Eh, Ziguinchor. Mhm. Eh, Dakar eh, Yaba Inda la portugaise la merveilleuse qu'est-ce qui les lie. qu'est-ce qui les lie. mais c'est royaume d'enfance comme Senghor quand Senghor dit je vois je me waaw waaw et puis euh, même am na beneen yaa kii euh, Guéréo. Guéréo waaw waaw tim ci yaa ngi ma doon laaj léegi ni ma sa sirène. bi lan la donc c'est c'est une muse pour quand je pense à elle j'écris mais mais aussi j'ai vu que ton royaume d'enfance même si l'espace change mm -hmm. ce jamais loin de la mer jamais jamais loin des cours d'eau euh, Ziguinchor Mbour euh, Gandiol Saint-Louis Yaba Dakar tout ça c'est c'est très c'est toujours ci wetu géej ci wetu ndox mooy li ma la doon wax rek man dama am benn kii boo xam ne de pacte boo xam ne dama ko signé ak géej pour te dire bi ma demee choisir le roi je suis parti au septembre octobre novembre décembre ci laay door a gis suufu géej dama ko tibb te xam nga France seen suufu géej dafa am ay xor dama ko tibb ne suufi géej a ngi nii ma yóbbu ko ci et ce qui m'a manqué c'était l'océan l'océan donc dafa mel ni dafa am benn pacte boo xam ne moi j'ai besoin de cet océan ma euh, benn yoon benn yoon depuis ma ñibbisi benn yoon laa monsieur génne ànd ak Doudou Diène mun directeur bi nekk Joko Joko FM mm. ma dem Thiès j'ai passé vendredi samedi dimanche mais j'avais tout le mal du monde ma manqué le le souffle des alizés le des alizés ma ñëw dellu si waat rapidement euh, euh, wax nga ko léegi nga dem France mm. euh, tu es en France loin la mer on sait que ni Paris amul géej waa mais nag mais nag euh, en euh, fait euh, fi ma ne woon y' a y' a benn bu tudd noonu kii la Marne. la Marne waaw bi ma nekkoon muy tudd Val de Marne mooy. Val de Marne Marne quoi. léegi nag ma j'aimais bien ma dem toog ci xam nga dafa set. non da nga da nga utoon da utoon substitution à la mer. mu ngi noonu <laughs> wala wala wala wala des fois euh, j'aimais bien. Euh, ma dem euh, ci mairie choisir le roi amoon na benn euh, genre kii mooy fi ñuy canaare yi di nekk. Mhm. may sànni kii te it là tu trouver des d'autres poètes. yoo xam ne comme comme kaw yow lañ. mais nag beneen milieu la boo xoolee comme par man man je viens du Sahel et quand on parle du Sahel on parle des baobabs et autres et autres te fii boo demee Paris c'est la ville. c'est la ville. tu tu vois que des bâtiments ay ay ay euh, ngay gis. ok euh, xam naa léegi ñu jeexal. Mhm. mais du ñu jeexal si lu du wax na ñetti sujet très mhm. rapidement. Mhm. benn mi mooy nga nekk à Paris nga màgg fa def fa ses études supérieures. nga côtoyer les premiers rappeurs africains. c'est-à-dire MC Solar. waaw MC Solar c'est mon ami. c'est ton ami d'enfance. waaw mon ami d'enfance parce que MC Solar. boo xoolee li ñu liyee woon mooy MC Salah Dakar la judd. waaw c'est un Tchadien. Ah, et d'ailleurs am na benn chanson bi muy kii nii bu mu naan bi mu naan j'ai grandi euh, je suis né à Dakar mes enfants mes mes parents venaient du Tchad. après léegi nag moom MC Salah muy dëkkoon benn ville bu ñuy tudd Maison Alfort dafa jege Choisy-le-Roi mais temps affaire Kaana genre et d'ailleurs am na benn sanson sax bu muy wax ne tout a commencé là-bas dans dans cette ville qu'on appelle y a une femme chelou qui vient qui me donnait du réconfort léegi maison Alfort boobu lañ daje te boobu booy Dakar boobu bonde moo xew ils ont vu waaye vous venez on vient de Dakar moom mi ñu commencé woon bind ma commencé leen fréquenter et c' est comme ça que j'ai avec le rap. c' comme ça mm. euh, beneen bi ta Linguère. ma Linguère. ma Linguère ma voulu te te te t'approprier Taalinguer. waaw yow yow déggoo déggoo woy Youssou Ndour ba xanaa bi mu naan code Fall Linguère la. Ah. <laughs> kon code Fall Linguère la. waaw après na ne Linguère code Fall. waaw madame elle s'appelle code Fall elle est Linguère. Ah. Fall elle se nomme code elle s'appelle et mooy sama mosaan daal ñun si séeréer mosaan mooy. ma ma Alain na Issa fils de Seydina Limamou. Mm -hmm. Alain. Bourguet eh, spiritualité. Mm -hmm. qu'est-ce qui te lie à Seydina Limamou je sais que tu es très religieux. tu es très euh, attaché à Seydina Limamou. pourquoi nga choisir. Eh, bind si si Seydina Issa ak Seydina Limamou. boo xoolee maa ngi maa ngi ni dana va éclairer le cœur des humains par le verbe moment bi may def terminal dama terrible woon ba maa nekk ci moment yi bopp nekk ci di def yoo xam ni ab du la wax réer réer je parlais de philosophie mm. et d'ailleurs dans ma philosophie wala su ma doon développé na ma yàlla baal j'allais jusqu'à un peu donc dégager l'existence de Dieu de Dieu waaw parce tubaab trop cartésien waaw ba benn jour daal saay may nelaw j'ai sa photo on m'a dit kii. te xamoo ko xaw ma ko. mun ñu ne ma kii moom mooy euh, Seyna Issa doom Seyna Limamou. après bon ma bàyyi. beneen yoon une deuxième fois ñu ne ma yow da ngay bind ji te booy bind bu ci fàttee wax Seyna Issa te boobu man commencé woon naa bind. Mhm. jamais jamais dit que xalaat ma woon bii mais man nii boobu laa nekkoon genre mhm. nii. mais la spiritualité la religion parce que dañuy gis ni les gens. les poètes dañu tàmm di se nekk des des déviants. Mhm. wala ñu nekk des gens yoo xam ne qui qui qui sont pas intéressés à la à la religion. mais allez euh, nan ngay allier ça je sais que tu es très spirituel tu es tu tu adores la religion. Mhm. nan ngay def pour pour pour jongler pour ne pas la déviance. l'errance des mmh, poètes mmh, euh, mhm. la sa sa religion waaw boo xoolee même les les grands poètes ah mu doon Rimbaud comme mu doon ce genre là ñoom ñëpp may door a di di xool seen kii ñoom dañu kii mais man na fii ni euh, Yoff mhm. booru géej la mhm. Seynaa Limaamu daa randal géej gis nga jaamalaay fu mu ne mais daf ma permettre que man la religion daf ma équilibré te boo xoolee sax d'ailleurs man euh, am na fu muy kiiwee fu muy defee kii ne euh, euh, j'irai en pèlerinage à Joal dinaa dem Fadiouth fa nga xam ne di nga gis ñetti religion ñetti am de ñetti culte la culte ñi nga xam ni ay animiste lañ ñi nga xam ne ay chrétien lañ ñi nga xam ne ay jullit lañ après j'ai dit ce jour où euh, Marie euh, mère de Jésus est entrée dans la grâce de Dieu pour man religion moom mooy équilibre àdduna. mooy équilibre àdduna allez suñu waxtu jeex na suñu waxtu jeex na. waaw <laughs> eh, bàyyi la nga tàggoo. waaw euh, euh, très content yow man ak yow suñu waxtaan moom. xajul fii xajul fii mais nag euh, kontaan naa ci invitation bi. Mhm. et puis xam nga rek li ñu naan charité bien ordonnée commence par soi-même kuy xalam di sa jaay barke ba yaay borom. et toi man ak yow xamante nañu moo nekk premier plateau bi nga xam ne def naa ko ci. Euh, livre bi. Mm. et voilà aussi euh, j'invite euh, toute la population rufisquoise ñi ma xam ak ñoom Tima tout ça gens avec qui ñoo bokkoon le club des amis de la poésie wax leen le 24 décembre bi ci laay def incha allah ci laay def présentation ak. dédicace bi et madame Rahmatou Seck moo nekk lauréate di chef de l'État pour les lettres sama la. moom tamit bari ñu la dëkk nee na moom elle est petite fille de pêcheur moom moo nekk ki nga xam ne moom laa tuddee bis bi et j'en j'ai en profité aussi pour rendre hommage à un autre écrivain mooy sam papa Abbas Ndione lui aussi c'est un ami à euh, Papa Ndiouga donc daal euh, maa ngi invité ñëpp di la remercier tamit ci dalal gi ma dalal kontaan naa ci man maa gën a kontaan kontaan dalal un grand frère un ami un confident quelqu'un qui a participé ci sama formation de donc mi ngi noonu Alain Abdoulaye njur souffle des Alizés euh, mi ngi def euh, cérémonie dédicace bi le vingt quatre euh, décembre décembre bi di ñëw. médiathèque médiathèque bu bu baax ñi. Mhm. donc moo nekkoon suñu gan tey si suñu émission gan gi mbokk internet yi suivre référence actu ñu ngi leen di dig daje beneen jotaay ak beneen gan.